kon suñu góorgóorloo rek lépp mën a baax ndax ni nga ko leeralee dëkk bi yarul islam moo tax sëñ bi tëb ko tey nag dëgg yàlla mbooloo mu bari yaroon na fi ci yarul islam kon yoon wi nga doon tudd na bu ci jaaree mën nañu am yoon lislaam muy am na ay roykaay yu mu kon li ci des mooy nañu suñu wajur dimbali wàññi yoon wi ñu ne ñu dimbali leen na ko jàttee lépp bu baax asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu yal na ko yàlla dëgëral te sàmm ko ba li mun naa la liggéeyal maamam mu defee ko nu kawe njortam te ànd ko ak njaboot gi yépp ak taalibe yépp naka noonu itam lañ koy ñaanale cheikh abul baraka ibnu cheikh mouhamad al fadil di ko ñaanal itam cheikh moustapha hafsa ibnu cheikh moudou xawa bada mbake waaye di ko ñaanal itam sunu sëriñ cheikh abdul xaadir sëriñ jiili ibnu cheikh moustapha fadil ak njabootu sëriñ Mor yëpp ak taalibe yëpp te di ko ñaanal mboolem jullit yëpp ak fu ñu mën a ne suñu tuddee jullit yi nag sëriñ Mbàkke Abdu Rahmaan tudd na ko léegi mu ñoo fàtte mukk suñu mbokk yi nekk ci réew mu ñuy wax Burma wala Birmanie nga xam ne ñu ngi jànkoonteeg ay jafe-jafe yu tar te dara waralu ko lu dul nekk gi ñu nekk jullit yàlla na yàlla yëkkati natt boobu te alak ñi leen ko teg bi barakati Cheikhul Xadim ginnaaw nuyoo bi ak siyaar bi nag dañuy jéggalu bu baax a baax yëkkati bi ñuy yëkkati suñuy kàddu ci kanamu kilifa yi di fas yéene jottali kàddu yoo xam ne daayira Taysiroul Assir bi jokkale seen sëñ Modou yëpp ñoo ma ko yónni ngir ma jottali ko muy kàddu yu cant ak soññee jëmale ko ci ñi ko war a jëmale mu mel ne kàddu yu cant yi la ñuy te di ko tàmbalee ci njabootu sëriñ Modou Moussa Diagne ndax bay ci sa wewu tànk ndax lii lépp su taxawee ginnaaw yàlla ñoom la ndax ñoo ñu jox ndigal dañu teete dañu ñaanal ba ñu ñemee waaye cant gi deesu ci mën a sori mukk te jagleelu ñu ak cant ak Cheikh Moustapha Hafsa moom sëriñ mu daw bàll ak njabootu sëriñ mu daw bàll gépp ngir seen yitte ak seen taxawaay ak seenu safoo gi ñu safoo bis bi biñ ko yegee ba léegi dinañ leen ñaanal loolu ñu lañu teeg ngërëmul Serigne Touba ak Thierno Ibrahima Fati waaye naka noonu itam la ñuy sant mboolem daayira ahfaat yi nekk Touba ak li ko wër nga xam ne ay at yi at ñooy ànd liggéey bi yàlla leen suñu borom defal tànk yi muy tànk yiw ak barke di sant bu baax itam daayira tondooy sëñ Modou yi ak daayira mbooloo mi nga xam ne ñoo mos a nekk ak sëriñ bi di ko jàppale ci liggéeyu sëriñ Tuubaa yi doon fa sàkk ngërëmul yàlla ñu leen di tudde ay dongo tarbiya su loolu weesoo itam ñuy sant mboolem koo xam ne jàpp nga ca bis bi ak noo ci mën a jàpp yàlla miy fay tey gis jëf yi yàlla leen fay lu kawe seen jot di beral ak cant nag suñu partenaire bàyyi faaw sëriñ Modou Moussa Diagne mi soxna aw Gadeg di ko ñaanal ni muy def lépp mu day jeex ngërëmul sëriñ waaye di beral cant mboolem service yi nga xam ne ñoo am ak ñun bis bi ba mu mën a mucc ay moo xam police la wala gendarmerie wala sapeur pompier ak mboolem agent de sécurité yi nga xam ne teew nañ fi di ñu jàppale di sant bu baax itam presse bi di leen ñaanal barke di seen liggéey ginnaaw loolu comme waxtu wi dafa xat te toogaay bi métti na ci kilifa yi ñu leen ciy jégalu bu baax xam naa comme ni ko daayira bi baaxoo di defee dañuy jàllale kàddu yu soññee. jëmale ko ci suñu moroom yi ndaw yi nga xam ne sañ nañ leen a mbokk yi daayira Taysiroul Assir day am na lu mu seetlu li mu seetlu mooy lan li mu seetlu mooy dafa mel ne société bi ñu nekk di ci dund ginnaaw bi mu sosoo ci anam ak jikko yu rafet dafa wëlbatiku di daw jëm ci lu ñuy wax al inhiyaar al ijtimaai wala at tafakkuk al usari sëñ Mbàkke Abdu Rahmaan dund na ko léegi mu mel ne société bi day mab mel ne glace bu nekk ci am ndox di seey te loolu li ciy firnde mooy jikko yi ak principe yi nga xam ne moom lañ daan moom lañu daan xàmmee dafa tàmbalee tumuranke lool ci jamono tey jii te loolu nag su amee war nañ koo seetlu seetantal ko bu baax te xoolaat suy bopp mbokk yi wa fii anfusikum afalaa tubsiruun xanaa duñ xoolaat suñu bopp lan moo xew li ñu seetlu ci anarchie muy fawda nga xam ne dafa mel ne kilifteef gu mat kilifa gu responsable dafa manqué lool kenn toppatul kenn kenn xamatul foo jëm loolu nag su amee war nañoo def ab taxaw seetlu def li ñuy tuddee autocritique kon nag waay waay gars yi wa fii anfusikum afala tabsiruun kon yéen ndaw ñi na ngeen waaj bu baax a baax te ci biir waaj yéen ndaw ñi ñi ma sañ a waxal na xam ne teel a sóoraale ne yoon lu ngeen jël wu metti lay doon wu tar lay doon wu bari ay pakk-pakk lay doon waaye nag yitte ju kawe yitte ju kawe rek mooy tax ñu yegg kama xaala shaa'ir maa lii wa lid dahri yarmiini wa armihi wa yashrau shawka fi darbi wa ajlihi dafa mel ne day bëreeg jamono ci heure bu songee dara ànd ak shajaa ànd ak courage di bëgg a def dara rek mu yàq ko waaye nag dina am fulla yi lu mu jëmbat bëgg koo yàq mu buddi ko jàmm doxal aw yoram kon ñun nañ nekk foofu ñaari mbir la mu ngi nii yoo xam ne lu jar waxtaane la lu jar a ràññee la itam mooy li arab di tuddee al wal xadaasa muy l'authenticité et la modernité ndax buñ ne li fi maam yi bàyyi woon dara la waru cee soppeeku warut a mën a ànd ak jamono ah kay mën naa soppeeku waaye nag lu ñu ca mën a soppi ñu sax ci principe bi lislaam yi sax ci ngor sax ci jom am kersa doylu ak mën a muñ ginnaaw bi ñu jiitalee sax ci ndigali suñu borom yi di dégg lu baax di tere lu bon kama xaala jalla wa kuntum xayra ummatin uxrijat linnaas taamuruna bil maarufi wa tanhawna anil munkar waaye itam li ñuy tuddee alxadaasa muy modernité ñu xam niñ koy niñ ciy duggee bu baax bala ñoo lap ci géejam gu yaatu googu te ay duusam am doole lool moom modernité lab boobu nag lap gi ñu mën a lap ci biir modernité sëñ Mbàkke tudd na ko léegi ba ba tey mooy li ñuy jëfandikoo réseaux sociaux yi walla internet d'une manière générale ndax dafa mel ne ñor gi ñu waroon a ñor di utiliser nouvelle technologie yi dafa mel ne ñor boobu dafa manqué lu bare bari ci Sénégal yi dafa mel ne daal internet ñoom taxuñ ko war a ndax ni ñu koy jëfandikoo dese naa ñor loolu ndax lépp lu ñu daan wax ci biir néeg di ko nëbb heure boo xëyee gis ñu exposé ko ci penc moom mu ñu tuddee internet te xamuñu ne am penc la bu ma xam ku mu neex saaga ku mu neex xaste mu mel ne kenn amatul kersa kon muy lu jar a xel kon modernité tekkiwul ne dañoo war a soppi lépp waaye dafa war a ànd ak xam-xam ànd akub ñor ànd akub ràññee ak xam sa bopp nag itam bokk na ci xam sa bopp nag di seetlu sa bopp kon mbokk yi wa fii anfusikum afalaa tubsiruun bokk na ci xam sa bopp muy ak tawakkulu alallah bañ a weer sa mbir ci kenn ku dul yàlla ndax wa maa min daabatin fi l ard illa ala allahi risquha wa man yatawakkal ala allahi boo bàyyee yàlla sa lépp rek mu defal leen la war a defal lépp kon nag ñu baal ma ci kàddu gi li ñuy wax coom ak li ñuy wax suq mën naa ñàkk lool ci nit ku xam boppam bokk na ci xam sa bopp itam tabe tabe bu wér di bokk ak sa njaboot li nga am waaye itam am esprit de partage li nga am nga di ko bokk ak say njaboot di ko bokk ak say taalibe di ko bokk ak ña nga yilif di bokk ak say mbokk jullit te bañ a yor rek jikko yi jinax dafa am jinax joo xam ne dafa am ko am ab jamaa bu cher ci moom jinax ji ñëw wan na ko waa ji mer ci lool dem jëli ak nit ne ko dama bëgg nga rayal ma jinax ji moom butti ko génnee jamaa bi mu bi mu lokk ci biir waa ji jël ay matuwaayam ñëw di rey si jinax ji dikk fekk bi junni jinax ñuy ciib ciib mu xool xool jaaxle lool ba mu yàgg mu geesu gis benn jinax bu nekk ca koñ ba ne mugg mu attaqué ko rek daat koy jam buti ko gis jamaa bi ci biir waa ji ne ko sant naa la gërëm naa ci sama jamaa bi ma delloo si waaye noo def ba xàmmee ne noo def ba xàmmee ne moo jël jamaa bi mu ne ko lu simple da mooy baadoola bu amee day bel kon nag nañ am esprit de partage tey bañ di jàmm ku am fàtte ña nga ña ña la fal loolu nañ ko bàyyi xel bu baax a baax bokk na ci xam sa bopp itam su la yàlla joxee nguur moo xam nguurub diine la yoo xam ne lislaam la ko jox wala nga donn ko ci say maam wala nguurub àdduna goo xam ne ay chiffrage moo xam système de vote bu mën a nekk moo la ko jox nga di ko jëfandikoo di xeeb nit ñi wala leen bunduxaal ci doole ji nga yor wala daraja ja nga yor képp kuy def loolu di jëfandikoo nguur noonu ñu wax moo xam nguurub diine la wala nguur àdduna na nga xam ne da nga ko layob sa borom te dafa mel ne bàyyi woo xel waxi suñ borom dina awalam yatafakkaru fi anfusihim ko xool fi nga jaar xool li la jox li nga yor yaakaar naa doo jëfandikoo nit ñi noonu kon mel ne fi ñu koy mooy di soñ ñu ndaw ñi ak taalibe yépp nag ñu am kersa nag suñu diggante ak du Touba ginnaaw bu ñu amee kersa ci suñu bopp suñ am kersa ci suñu bopp nag mooy am lu ñuy bañ ak lu jamono tar-tar ak fu ñu la fekk nga doylu ànd ak sa ngor nga xam ne yaxsibuhumul jaahilu agniyaa min ataafuf fu ñu la fekk bu la kenn xamal lu metti ci yow bu la dara jaral topp ci këwal topp bu la dara jaral jaay sa ngor wala sa diine wala sa lislaam wala sa taarix waaye itam am kersa ci yàlla mi ñu bind subhaanahu wa taala ak teraanga yi ñu defal yépp da ko sëñ bi waxee léegi jóge ci nutfa dem ci alaqa dem ci mudga mu wax ne fa jaalnaahu samian basira ak wa saxara yi ngay dégg yëpp ne alladi xalaqaka fa sawaaka fa adalak yooyu yëpp ne wala xadd karam naa ba ni aadama nañu rus suñ diggante moom te li sàkk ci lu ndaw a ndaw la moo ñu jaamu ko dafa ñu ko bokkale kenn waaye itam am kersa ci jaamu yàlla yi ci warmaal leen sa moromu nit nga warmaal ko di bañ a feeñal ab safaan ci kanamam moo xam ay jëf la wala ay wax ndax Sëriñ Tuubaa day ñun ñëpp teraanga jëm ñu defal teraanga ju ne jëriñu ko ci àdduna coono yu bari daj na ko ngir ñun xusuur yi xalat wal ahlu an nii tafaraqa la ne mu daj ko suñu waaye itam bàyyee ñu loo xam ne du jeex mukk ila qiyaami saa kon nag yaakaar naa buñ goree war nañoo am kersa suñu diggante ak sëriñ bi buñ goree war nañoo sàmm doole bi buñ goree war ñoo topp dara bu dul lislaam buñ goree alal war ñoo jaay suñu bopp te loolu nag lu bari la kon nag kon gaañi nañu waaj te waajal suñu barab te fexee daw lépp luy teelu bég lu bàmba mi mu bégal kon gaañi nañu waaj te waajal suñu barab te fexee daw lépp luy teelu bégloo bàmba mi nu bégal ma bëgg nag kenn ku nekk boo àggee sa kër nga xalaat ci wa fi anfusikum afala tubsirun in uridu ila al-islaha ma stata'tu wa ma tawfiqi illa billah wa salaamu aleykum wa di sant yàlla bu baax di julli ci yonenteem bu tedd bi sallallahu alayhi wa sallam di jaajëfal Sëriñ Tuubaa fu ñu toll waaye di jox lépp ak sunu lépp maam Thierno Birahim mi waajuru Sëriñ Mouraw Balla Sëriñ Omar jërëjëf waa tey Taysirul Asir dafa mel ni la buur ba waxoon ña yilif dama dafa mel ni xese boobu dafa am fii ndax buur ba dafa nekk kilifte ca nguur ga mu nekk ni nag mag bëggatuma koo gis dama bëgg ñépp faagaagal seeni mag bu njee ma dédommagé leen ñu ci bari def ko ba am kenn koo xamante ni dafa nëbb magam biñ joxalee trois mois mu dajalewaat population ba yépp ni leen léegi nag maa fi nekk maay buur mag néewatu fi waaye asamaan si dama bëgg ngeen tabaxal ma ci ab gratte-ciel ñépp jaxle fekk ki dencoon magam dem ca màggatam ni ko buur de am na lu mu génne ca itam daanu ci la nar mu ni ko lu mu leen wax mu ni ko dani ju ma jaww jii damaa bëgg ngeen tabaxal ma ci ab gratte-ciel mu ni ko loolu lu yomba lijjanti la bu ngeen demee da ngeen ko naan nañu rëddal plan bi nañu rëddal plan bi ci asamaan si génneel ñu fi fer war a nekk génneel ñu fi béton war a nekk génneel ñu port yi lépp mu rëddal ñu ko ci asamaan ñu dem wax ko buur mu ne mag des na ci réew mi kon dafa mel ni jataay bii la ko sumb ak la ko sos ak idée ba nga xamante ni indi na bis bii tudde ko tur wii sëriñ ji li ñoom ñii génnuñu ci kon jërëjëf Mbacke ndax sëñ Mbàkke wax na ko léegi Omar Kan wax na ko léegi sëñ Omar Kan nee na bis bi mas nañ cee sàmm kóllëre mas na mën nañ cee yeesal sunu taalibe waaye mas na ci dundal lislaam waaye mas na si na ci jog bokk lépp ngi ci bis bi mu indiwaat sëñ Abdou ni bis bii yarub diine lañ ciy wax ñun yarub diine baruñ ko sëñ fàllu jàngalee yàgg na ndax sëriñ fàllu moo ni woon suñu bàyyi ceerno day jàngal na nu banni ban banni ar mu yar nu banni nër mu yeenu bañ jar loolu waxi sëriñ fàllu waaye sëriñ fàllu itam yemul ci loolu bi mu nekkee sëriñ tubaa réseau sociale yàgg na fi de du tey du tey yàgg na fi ak wax loola neex ak wax loo xamante ni du sa borom dañoo dajale ay ñu ñàkkub yar dajale dajoo bindub leetar kenn ku ne bind jax sa xalima ñii bind daaj ñii bind sànni ñii bind càmmoñ ñii def lépp ñoo di ko sëriñ Fàllu mu ni lii mbindum diwa dem leen wol ma ko mu ni lii mbindum diwa dem leen wol ma ko ni lii mbindum diwa dem leen wol ma ko mu yow yaa bind lii mu ne ko waaw mu ne ko yowet yaa tàmbalee fii yem fii mu ne ko waaw mu ne ko yowet yaa tàmbalee yem fii yem fii yem fii mu ne ko leen wax dara ndax fa ngeen yaree di ko ba def lii man fa lañ ma yare man sëñ Fallu kon dafa mel ni dafa mel ni ca kooku ke yar ke leen yar nag moo yar sëriñ mu daaw balla mii moo taawloo sëriñ mu daaw balla ca dafa wax ni fa ma doon tànn sëriñ moo daa balla taaw ya bari na fa lool bu sëriñ moo daa balla ma tudd loolu taaw dama ko taaw lool kookoy sëriñ moo daa balla waaye ceerno itam def ca lu doy kiimaan bi mu defee leen ndigalu sëriñ tubaa yi ci waa kër sëriñ tubaa yi ba noppi bi mu ñëwee jébbal ko kaamile sëriñ tubaa da ko ni li la ci waroon lépp def nga ko déggal wax boobu de dañ li ko ci li nga ci waroon lépp def nga ko waaye nag damaa bëgg nga delloo ma sa doom yii ndax doom ju ne mën naa caa defal baayam loo xamante ni mënu ko caa def kon nun foofu lañu xamante njabootu Sëriñ tubaa gi ñoo njabootu Ceerno waaye Ceerno it di ko mën a fay jëf ña ko Sëriñ Tuubaa joxoon di Sëriñ Moodu Mustafaa ña ko Sëriñ Tuubaa joxoon ci Sëriñ Fàllu ña ko sëriñ Tuubaa ji joxoon ci sëriñ Mor bu Bousso ñooñ ñëpp borom daaru dafa jëlaat ci boppam delloowaat leen firnde ji mooy soxna su Mbàkke mi joxoon sëñ Fàllu mu am ci soxnaa bi firnde ja mooy soxna jóobloo mi nga xamante ne waajuram borom daaroo ko jur waaye loolu lépp nag bi sëriñ Moodu Mustafaa Fall lu ñëwee nag daf ko fulaat nag ndax dafay jël soxna ami doomi sëriñ Modu Balla jëlaat soxna bintu doomi sëriñ Modu Balla waaye jëlaat ñetti doomam nag indiwaat ko kër sëñ Modu Balla boo demee kër sëñ Koso boo demee kër sëñ Xaadim gii waaye boo demee kër sëñ Seexuna itam mi nga xamante ni bintu Seexul Xaadim soxna moomee ko jur kooku mooy sëñ Modu Balla Omar wax na ko léegi waaye fa sëriñ Modu Awa Balla yem ci sëriñ Tuubaa bu fa yemoon rek mu doy ndax sëriñ Moulaa moo ko ni liñ soxla ci àdduna mooy jañ ak ñoddi man sëriñ Tuubaa maa la ko ameel boo demee tëddal nelaw sëriñ Tuubaa moo ko ni am gan gu ko ruus gu ko gu ko gu ko gu ko ganesi mu ne na ñëpp génn waaye na sëñ Moulaa Balla mi na toog mu génn mu ne ko xam nga lu tax ma ne kon mu ne na tooga man ba may yëkkati lislaam maag sa baay doo nga àndoon moom Thierno Ibrahima moom sëñ Modou Aballa kooku mooy sëñ Modou Aballa sëñ Modou Aballa nag la ko mayoon loolee li sëñ Abdou mii wax sëñ Bakki Abdourahmane mii wax dafa nekkoon ci moom Thierno da koo yar jàngal ko nampatal ko ci boppam ba ni ko lan mu ni sëñ Modou Aballa bu ñu ràccatalee buum jox la boo ñëwee ma jox la saabaat kooku mooy sëñ Moda Balla waaye sëñ Moda Balla itam fay ko ci njabootam 1943 bi Thierno demee bayti dane ah ah man neex na man na maa nekk ànd ñëpp ndax lu am na jël man lu ma am bokk ak yéen kooku mooy sëriñ Moda moo tax ñi ngi sant bu baax tab bii ñu àndal wax nga jikko yu baax yi nga xamante ni moom lim léegi tab ci la waaye kee boo gisee ma jazaakumullah xanaa xari jazaay boroom xam-xam yi nee na boo déggee kuy wax ba dégg baat boobu ñàkkul lu xew kon sëñ Abdou jërëjëf sëñ Xaadim yow man ngaa jiite délégation bi ndax bi sëriñ mu daa bala noppee ci yow sëñ Modou Moustapha moo njëkk a def teraanga ci yow jox la doomam nga yóbbu nga yóbbu ko kaw la am ko njaboot nga yar leen mu jiite délégation bi ci turu magam sëriñ Moustapha Absa waaye ci turu magam sëriñ Basiru Aslo àndanteeg sëriñ Sidi mi nga xamante ni moom la sëriñ Moda Balla tudde sëriñ Sidi Mohamed mi bokk ak soxna moomi bintu bintu Cheikhul Khadim lépp kon moom la àndal waaye àndanteeg sëriñ Jiili sëriñ Abdou Khadra moom sëriñ Moda Balla waaye àndante itam sëriñ Xaadim moom sëriñ Moda Balla waaye nag soxna Bintu day ñëw na moom sëriñ Moda Balla ak soxna May moom sëriñ Moda Balla yàlla na yàlla fayal leen. daaru sëriñ Abdou wax nga dëgg sëriñ Omar wax nga dëgg. daaru li ñu am fetaluñu rab bi dañoo laral lépp ndax délégation bii nga xamante ni sëriñ Xaadim ko jiite sëriñ Abbas moo ci njëkk teg dugal loxoom yebal taawam bi di doomam du taawam sax safur la muy sëriñ Xaadim Abbas sëriñ am sa ànd ak rakkam sëriñ sa Abbas ànd ak sëriñ daam moom sëriñ abbas ànd ak sëriñ dan moom sëriñ xalil waaye sëriñ naa moom sëriñ amsatu mbàkke moom it yebal na fi délégation waa kër sëriñ basiru antañang ñi ngi fi waaye waa kër sëriñ subeyru mi ngi fi njabootu borom daaru gépp ngi fi kon sëriñ xaadim ñi ngi ñaan sama borom guddal soo bu baax a baax billahi min ashaytaani alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala ashrafil mursalin sayyidina wa mawlana muhammadin al amin wa ala alihi wa sahbihi wa xadimihi wa ummatihi ajmain bismillahi arrahmani arrahim يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبص منهما رجالا كثيرا والنساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا صدق الله العظيم asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatu mbokk yi fi teew yépp ñoo ngi leen di nuyu nuyoo bu tedd nuyoo bu màgg nuyoo bu ànd ak worma bu ànd ak yar ak teggin te di ko def nag ci turu sunu kilifa sëriñ Xaadim Mbàkke docteur moom mi nga xam ne moo fi teew ci ndigalal sëriñ Moustapha ak sa Mbàkke mi nga xam ne mooy xalifa sëriñ Moodu Awa Balla Mbàkke te ñuy ñaan yàlla sunu borom yàggal ko fi loolu tamay ko kon ñoo ngi leen di nuyu ci turu Serigne ak kilifa yi nga xam ne ñoom la àndal di doomi Serigne Moudou Balla yu góor ak jigéen ak sëti Serigne yi nga xam ne ñoom ñëpp di daayira ay sëtam teew nañu fi ñi nekk Daaru Muxti ak ñu nekk Touba yëpp. ànd itam ak magi taalibe yi ak ñi nga xam ne ñooy ay jëwriñ ci kër ga ñépp teew lim nañu seeni tur jëruñu ci dellu kon ñoo ngi leen di nuyu ci turu mbooloo moom nga xam ne ñoo fi ñëw ci bis bii nga xam ne dañ ko tuddee seen kilifa di sëriñ Modou Awa Balla Mbacké ñuy jiital ci nuyoo bi nag kilifa yi fi teew yépp di ko tàmbalee ci sëriñ Abdul Xaadir sëriñ Jiili mi nga xam ne mooy xalifa sëriñ Moustapha Fadilu Mbàcke moom itam di ko nuyu bu baax di ko sant di ko gërëm ci teeru bu rafet bi nga xam ne moom la teeru teeru mbooloo bi ak kàddu yu rafet yi nga xam ne yëkkati na ko bi ñu dajeeg moom ci biir di nuyu ay rakkam yépp di ci tudd sëriñ Mouhamadul Bachir Mbacke moom mi nga xam ne sëtub sëriñ bu daaw bàll kon ñu di ko beral ak nuyu bu ñu ko xasee tudd nag damay far tudd rek sëriñ Ahmadou Mbacke moom sëriñ Moustapha Fadilou ak sëriñ Saliou bi nga xam ne dégg naa ni tudd ko fi sëriñ Moxtaar ak ñëpp di doomi sëriñ Moustapha Mbacké ñu ngi leen di nuyu di leen siyaar di leen sant di leen ndokkeel ci seen bisu waajal bi di sant nag bu baax ci cëral bi ngeen cëral sëriñ Modou Awa Balla ba tuddee ko bis bii loolu itam di lu am solo ndax dafay firndeel jokk ak bokk laay ji ma doon jàng léegi ci alxuraan suñ boroom def ci wax ne na ngeen ragal yàlla waaye na ngeen toppatoo bu baax te fonk bu baax ak kooku yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne képp koo xam ne bëgg ngaa gudd fan bëgg yàlla yaatal sa wërsëg yàlla musal la ci dee bu ñaaw na nga ragal yàlla te na nga jokk ak bokk mu dellu waxaat moom yonent bi sallallahu alayhi wax ne képp kuy dog ak bokk du dugg àjjana laa yadxulul jannata xaatia mu waxaat ci beneen addis mu ne amul benn bàkkaar boo xam ne nit ki dana ko def dañu war koo mbugal mbugal mu gaaw fii ci àddina dencal ko leneen ca àllaaxira bu gën a kawe bàkkaar bu gën a màgg dog ak bokk dog ak bokk bàkkaar la boo xam ne la ca yàlla di fayee nit ki ci mbugal ci àddina la koy tàmbalee gis laa tey àllaaxira mu waxaat itam ne ki jokk ak bokk mooy ki nga xam ne day fekk ku ko faalewul mu faale la waaye bu fekkente ne ki la faale rek ngay faale ki la toppatoo ci bokk yi moom ngay toppatoo nee na kooku jokkoo ak bokk da ngay kon lii ngeen def lu am solo la ndax dundal ak bokk la dëgg la maam yi kilifa yi nga xam ne ñoo jiitu seeni diggante doxal nañ ko ci anam ba gën a rafet daanañ demlante daanañ dikkalante waaye jamono xat na yitte yi bari na mbokk gi itam yaatu yaatuwaay boo xam ne ñëpp xamante yombatul kon yu mel nii rek mooy mën a fàttaliwaat nit ñi dundalaat bokk gi ak xam ak xamante mën a amaat bu baax kon nag yéen sëti sëñ Mouhamadou Moustapha Fadilu ñoo ngi leen di sant bu baax ci seen xalaat bu rafet bii ngeen am di teg cant gi ci loxol sëriñ jiili mi nga xam ne mooy njiit njiitu daayira bi ak sëriñ Abdul Karim mi nga xam ne moom itam doomi sëriñ Bassirou Mbacke bi ma waxoon léegi la kon def ngeen lu rafet def ngeen lu am solo xam naa ne kàddu yi du mën a gudd ndax guddi na waaye tudde gi nga xam ne moom lañ ko tuddee sëñ Modou Awa Balla loolu lu yell la lu jaarul ndax diggante sëñ Modou Awa Balla ak sëñ Moustapha mooy diggante sëñ Modou sëñ Fall te boobu diggante nekk na diggante boo xam ne li ñuy nekk nekk ay ndaw mën nañ cee wax lu bari ndax Euh, sëñ Modou Awa Balla doomam ji nga xam ne moom la ñuy wax Serigne cent vingt 1927 ci la ganee àddina sëñ Modou Awa Balla tudde ko siñ sëñ vingt 1927 mooy at mi nga xam ne ci la sëñ bu mag bii làqu yaakaar naa ne sëñ Fallou Sédié moomu ñi ko mag ci turandoo siñ sëñ Fallou yu sant Mbàkke bari ma kon diggante sëñ Modou Awa Balla ak sëñ Fallou sëñ Fallou Assou Dieye moom firnde ju mat sëkk la ci la ca dollee ko mooy fépp fu suñ mu daaw bala ma sa nekk di dëkk yi ñuy lim ne sanc na ko fu ci bari sëriñ Fallou fekk na ko moo xam Daaru Rahman la moo xam yeneen dëkkam yi nga xam ne da koo sancoon di fa jaamu yàlla sëñ Fallou daana yëkkati tànkam ñëw ba foofa fekk ko am na ci dëkk yoo xam ne sax sëñ Fallou dafa sanc ca wetam muy fee ñuy wax yabal boo demee njaarim yabal ma nga fa Touba Mérina ak Saam yabal di ay di aw tund woo xam ne sëñ Moodu Awa Balla ak sëñ Fallu ñoo fa dend ay dooro te loolu lépp day firndeel seenu xaritoo di firndeel seenu jaxasoo hmm, hmm, fàttaliku naa rek loo xam ne sama waajur sëñ Moustapha Absa moo ma ko nettali bis boo xam ne sëñ Modou Awa Balla la ko yónnee woon ci sëñ Fallou nee na nag booba suba teel la dem bi mu yeggee nee dafa fekk sëñ Fallou muy ndékkee cere cere ak ndox xam naa loolu sëti sëñ Fallou yi kon ngeen jël dars boobu am na solo sëñ bi nee na bi mu àggee ba nuyu ko def ko jox kool bi ne ko xewlu ci daan ne ko mbaa danga ko def cere ak ndox lu am solo la baax a baax la day ko def muy xëy di ndekkee cere ndox loolu day wane ak jaxasoo ak duggante goo xam ne duggante gu biiree la ci seen diggante kon diggante sëñ Moustapha Fallil mooy diggante sëñ mu Abale ak sëñ Fallou loolu moo waral tur yi ak jagleel bi ko jagleel bis bi suñ Moustapha Fadil bi nag digganteem ak suñ Modou Awa Balla mooy digganteem ak njabootu suñ Modou Awa Balla ci ñun li ñu gis xaj na am na ci loo xam ne mag ñi ñoo mu xam waaye junj nañ ko léegi ñaari ci doom yi jigéen yu suñ Modou Awa Balla nekkoon nañ ci kër suñ Moustapha Fadil ñett ci waa kër Sëñ Moodu yu jigéen it nekk nañ ci kër njaboot Sëñ Moodu Awa loolu yaakaar naa ne doy na sëkk ak jaxasoo doy na sëkk ak duggante boo xoolee fi ñu toog nii tey muy kër Sëñ Sawa Fallil kër Sëñ Moodu Awa Balla nga ne ci wet yàlla boole leen ñu dëkk seeni quartier sësaloo dell loolu boole yàlla goo xam yàllaa ko def ñun ñii li ñuy doon doon ay ndaw suñ Moustapha Fadilou fàttaliku nañ ay yooni yoon mu ñëw Daaru Muxti ba ci màggal suñ mu daaw walla sax daane ci ñoom fàttaliku naa itam téléphone sax daana ko téléphoné suñ Moustapha seq seqoon nañ ak xarit euh, jaxasoo woon nañu lool suñ Moustapha ànd na ma moom ñëw fekk sëñ Moustapha nii ci kër sëñ Saliou nii yoon kon loolu ñun ñi ndaw sax mën nañ koo seere suñu bàyyi bi ñu àndal muy si Xaadim docteur fàttaliku naa bi ma njëkkee gis sëñ Moustapha Fadel fii ci xayra moom laa àndaloon boobu maa ngi ànd ak sëñ Cheikhouna doomi ko sa gànnaar ñun ñaar ñu ànd ak sëñ Xaadim boobu dala mun jàpp bi ñëwee fekk ci sëñ Modou dafa génne xaalis di ñu tooñ wax ne ku ci wax ne maay sa sëriñ ma jox jox loolu jaxasoo ci diggante ñaari njaboot yi rek moo moo moo andi loolu yépp kon tudde gi ñu ko tuddee lu yell la lu jaadu la te itam dana dekkalaat bokk gi dana dëgëralaat lu bari dana firndeelaat lu baree bari xam naa kon gudd guddi na te kilifa yaa ngi toog ñoo ngi yemale foofu kàddu yi tey sant bu baax a baax rek di gërëm di xam leen ne daal euh, suñu xol sedd na bëgg nañu mbooloo mi nga xam ne ñoo fi teew yépp itam seenu xër ci bis bi ak jëf ji réyaay bi loolu rek moo ko moo ko waral kon nag li ñu fi def lépp yàlla na ko yàlla nangu suñu borom te dugal ko ci téere bi yóbbu sëriñ Modou Awa Balla ak sëriñ Moustapha Fadil ñoom ñi nga xamante ni ñoom lañ doon fàttaliku tey jii te yàlla may teew déwén déwén yu bari maa ngi jéglu ci wax ji lépp lu ci dëng rek ci man la waaye kilifa yi amoon nañu yéene ma doon wax wax ju jot doon wax ju mat asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh wasalaatu wasalaamu ala ashraf al anbiyaai wal mursalin sayidina wa mawlana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa xadimihi ajmain mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala ñi ngi yëkkati ay kàddu ci turu sëriñ Abdul kàddu yi nag kàddu yi cant la ak ngërëm jëm ci doomam yi nga xam ne ñoo taxawal bis bi tey te muy bis boo xam ne bis la bu am solo boo xam ne fàttali ko nañ ci seen maam Cheikh Mouhamadul Moustapha Fadilu waaye fàttalikuwaale nañ ci it seen maam Serigne Modou Balla muy loo xam ne lu sori ci moom la sori ci njaboot bi lool nee na kaddu gi nga xam ne moom la war a wax ak nje ak waa kër Serigne Modou Balla li ci ëpp waxoon na ko ci biir ak ñoom xanaa seereel ko mbooloo mi rek moo ci des. waaye day wax ne bis bii tudde gi ñu ko tudde bu daaw Balla dafa nekk loo xam ne dañoo delloo bàtt bi ca ndaala ndax diggante sëriñ Modou ak sëñ bu daaw Balla day dellu ci diggante Cheikhul Khadim ak maam Thierno Ibrahima Faty doonoon rek ju ci moom rek mu doyloo woon ko lool moom it mu doyoon lool sëriñ bi wóoru woon ko ci léppam dénkoon ko njaboot gi te njaboot googu mu ko dénkoon Cheikh Mouhamadul Fadil bokk ca te mu taxaw ca taxawaay bu rafet boo xam ne sëriñ Fallu moo taxaw fii seereel ko boppam te mbokk mi wax na ko léegi wax taxawaay bi nga xam ne moom la maam Thierno def ci ñoom te mooy jàngal suñu bàyyi Thierno daf noo jàngal ba ne ar mu yar ñu ba ñu ne nër mu yee ñu ba ñu ne jar yaakaar naa at na jëpp ngi nit ki soo ko jàngale ba mu ne ar yar ko ba mu ne nër yee ko ba mu ne jar yaakaar naa defar nga ko àdduna defar nga ko àllaaxira te bàyyee nga ko muy doon kuy mën di defaree ba faw te mbokk mi wax na ko lekk bi mu koy defee bi mu defee ci ñoom melo yu sell yooyu te mooy jàng ba ne ar yaru ba ne nër yow ba ne jar dafa kontine li geneen kóllëre goo xam ne guy dolli loolu doxoon seen diggante lay doon te mooy sos geneen bokk goo xam ne day dox seen diggante te mbokk mi wax na ko léegi mooy yëkkati ci njabootam jox ko muy soxna su Mbàkke muy way juru soxna yi muy way juru sëriñ Seex yi ba tey njabootu borom daaru nekk ci biir kër Cheikh Mouhamadul Fadil sëriñ Fallu it loolee mu seqoon ak maam Thierno te kóllëre ga tukkee woon ci way juróom wa Cheikhul Khadim mu continuer di ko dundal ci maam Thierno ba noppi koo gis di ko dundal ci njabootu maam Thierno ñu seqoon lu ne seen diggante eggoon fu ne dara mësu caa manqué dara mësu caa des ñoom ñaar ñëpp ñu sàmm ko sàmmin wu rafet dundal ko dundalin wu rafet loola di royaat ba kóllëre googu dox diggante mu Modou Awa la ak Cheikh Mouhamadul Fadil moo indi kóllëre gi dox diggante Serigne Moustapha Fadil mii ak Serigne Modou Awa Balla ba ñu seq lu bari mbokk yi wax nañ ko fii léegi jërut di ko baamuwaat moom it mu jaar fa way juram wa jaaroon ak Cheikh Mouhamadul fa way juram wa jaaroon di Serigne Fallu ak maam Thierno ak Serigne Modou Awa Balla moomu te mooy fexe ba njaboot bi jaxasoo. ay sët meññiku doon sët sëñ Modou Awa Balla doon sët sëñ Moustapha Fadil kon loolu lu am solo la ku mel noonu nag suñ ko tànnee tey tudde ko bis bii ak dikko yu rafet yi nekkoon ci moom ak mat gi nekkoon ci moom ak melo yu rafet yi nga xam ne bokk yi njëkk jàll léegi wax nañ ko ci moom day mel ne la sëñ Mbàkke waxoon rek ci biir thème bii ñu doon waxtaan waxtaane day doon lu am solo dafa wax ne yar munta ñàkk royteef kon bu ñu tuddee jëlee bis bi tuddee ko sëñ Modou Awa Balla te sëñ Modou Awa Balla di royteef kon day delloo ndaw ñi ci ñu xoolaat mag ñu baax ñi nga xam ne yàlla jag na leen ko te ñu doon mag ñu mat sëkk fees dell seen place ñu xool nan la ñuy royee ci moom te jàpp naa ne melo yu am solo yi nga xam ne sëriñ Mbàkke wax na ko fii ci yar lépp bu ñu xoolee ci melo sëñ Modou Awa Balla dañ koy fekk ci biir bu ñu xoolee it ci melaw sëñ Moussa Fadil mii moom bis bi dañ koy fekk ci biir mu jële ko ci way juróom yu baax yooyu kon nag sëriñ bi nee na loolu tax na xolam sedd na guyyu njaboot bi sedd na guyyu waaye it gën naa sedd it ci ñëw yu rafet nga xam ne ñëwu nañ ko tey ji si woote bii sëriñ Xaadim di way jur jiite ko ci ndigalul sëriñ Moustapha Absa mi nga xam ne moom it euh, sëriñ Xaadim wax na léegi digganteem ak sëriñ Moodu te muy loo xam ne ñu bari ci jataay bi xam nañ ci dara seen diggante ni mu rafete woon ak ni ñu daan doxe bokk gi ak ni ñu daan doxe pëlëre gi umpul kenn ku ko fekke woon bu sëriñ Xaadim àndee ak bokkam yii te mbokkam yii mu àndal kenn ku ci ñëwoon rek mu doy waaye mu àndal ñëpp li ko gën a neex nag mooy jëmmal gi ñu jëmmal bennoo gi nga xam ne njabootu maam Cerno Ibrahima benn bennoo nañu ci délégation bi te mooy ni ñu ko limee léegi genn benn buntu kër bu maam Thierno desul ñoom ñëpp ànd nañ ci njaboot ji loolu sëriñ bi mi ngi koy rafetlu lool ndax loolu it day am lu muy jëmmal am lu muy wane day wane ne ay bokk dañoo war a bokk bennoo di ànd di yëkkateendoo di tegandoo lu ci yéete kenn di tey ñëpp loolu nag sëriñ bi nee na ñu ngi koy rafetlu bu baax di ci sant di ci gërëm di eh, sant sëriñ xaar ak. kilifa yu baax yii nga xam ne ñoom la àndal ñoom ñëpp di leen yóbbante ak cantam itam ak ay ndokkeelam ak ay ziyaaram ci sëriñ Moustapha Hafsa waaye di leen ci sëriñ Abbas mi nga xam ne mooy xarifal borom daara Mawaqi ñaan suñu borom mu yàggal leen fi lool te may leen wér ba yéene ji ñu bëgg a liggéeyal borom daara ñu def ko yéene ji nga xam ne moom la sëriñ Moustapha yéene ci njaboot suñ mu daaw bàlle itam lépp suñ borom sottal ko sëriñ bi daal wax na ne xolam sedd na guy bég na lool mu ngi leen di sant di leen gërëm di leen ñaanal di leen yóbbante ay cantam ak ngërëm ci sëriñ bi di sant nag doomam yii ci jëf ju rafet yi nga xam ne jëfati nañ ko tey te mu doon luñ yàgg a jëf ak yoo am solo yu rafet yi nga xam ne wane nañ ko fi lekk te mooy wane rek ne ñoom kat yoon wa seen maam bëggoon ñu aw ca ña nga cay xar seen tànk tubay gis nañu ñu wane fi melo yu am solo def nañu kuréel kenn ci ñoom yëkkati na fi alxuraanul karim ñu def kuréel jàng xasiida sëriñ Abdul Karim wax ci dénkaane bu am solo ndaw nag su fekkee alxuraan jiitu na ci moom mu yàw yar ne si ci xasiida yi sëriñ Tuubaa te lépp di jàngale ak yare génne fi itam jàngale mu am solo mi ñu fi génne yooyu ndaw mag nañoo am ci ñoom yaakaar kon sëriñ bi li muy def moom mi ngi am ñoom yaakaar te di leen ñaanal dara bañ leen a um, fakkatal ndax la Cheikh Abdoul Khadir Mbacké daan wax rek ku jóg jaar ci yoon wi te dara dogu la danga nga kon nag ñoom yàlla bu leen dara rog yàlla ñu àgg ni aw yoon te àggale itam yéene yi nga xam ne moom la seen maam amoon ci ñoom ñu mel ko te jikko yu rafet yi nga xam ne ak kàddu yi nga xam ne sëriñ Abdou Karim génne na ko ci seen tur dalal na xelam seral na xolam seral na xol mbokk yi fi nekk yépp tax na it ñu gën a am ci ñoom yaakaar ne yoon wala seen maam bëggoon ñu jaar ñu ngi koy bàyyi xel ndax bàyyi ko xel moo tax bi ñuy bind di génne ab déclaration bu ñu war a wax ci bis bii ñu tënk ko ci ok te melo woowu mooy bi nga xam ne moom la sëriñ bi nee na moom lay gis ci ñoom bi ne mu toppee ci jataayu sëriñ Moustapha bi ba léegi kon nag mi ngi leen di gën a soññ jikko yu rafet yooyu nga xam ne mooy jikkoy sang te nga tudd ko fi léegi ngeen gën cee góorgóorlu te gën cee yar njaboot bi nga xam ne ñoo leen leen a féete suuf te xam ne loolu mooy may mooy maye ndam tey mooy maye ndam ëllëg sëriñ Mbàkke wax na léegi ci biir waxtaan ne euh, doom ju baax waajtaay la doom ju baax ndénkaan la waaye doom ju baax itam kan ku nekk mooy bëgg-bëggam te bu sañoon bu ëllëgee moom la fiy bàyyi te ñett ya yonent bi waxoon ni bu nit ki faatoo léppam day dog ba mu des ñett yooyu doom ju baax ñu koy ñaanal ca la bokk te doom nag mooy sët ay sët zurriyatan tayyibatan tujaddidu nahji nabiyyil Mustafa tajtahidu ñooñu yàlla nañu ñu yàlla boole ci barkeb Sëriñ Tuubaa ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di jéggulu ci kàddu yi def ñëw bett ngeen xam ne lépp lu ci dëng ci ñun la ndax kàddu gi bett nañu euh, lépp lu ci jub mooy ni ko sëriñ bëgge woon ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp wassalaamu aleykum wa wa barakaatu maa uyubi wa maa ifaasi man qaadani sukura fi anfaasi maa wa maa ifaasi ربا خدما أدناسي معيسا مني مال الخناسي حمد ربا خدما أدناسي